de Capelette et le programme. D'accord. Félicitations, monsieur. Nos parents du Caillot. Félicitations. Merci, merci, merci. Oui. ci lañ annoncé nag ne commune Niakhène moo ci jël première ci catégorie euh, ni ci nañu xëy na ña fa nekkoon ñëpp ca kii ba dana ci am ñum ci bet ndax ñaaxeen dafa doon commune boo xam ne commune rurale la maanaam dëkku àll la amul géej amul usine amul entreprise amul dara bay ak sàmm rek la ñu xam bu demee jongante ak commune yoo xam ne am nañ ay partenaires extérieurs am nañ ay usine am nañ ki seen i budget mën naa dem milliard wala 900 nanga millions te commune ñaaxeen budget mënta mënta mat 60 millions kon bu ñu ne ñaaxeen moo ci raw dana jaaxal ñenn ñi waye ñun ñi nga xamné ne ñooy liggéey ci commune bi té liggéey ci projet bi ñun bettuñu ndax man biñu défé suñu présentation lima doon njëkk wax su féké dañuy def sélection par dossier wóor na ma ne dañu sélectionner suñu dossier parce que liggéey nañ ko nam waré amul kenn ku ñu mëna a dossier présenter dossier mu gën lañu dossier biñu aggé ci présenter tamit suñu présentation bañ def biñu génné dama né man dé nit du tag bopam nit it mëna umplé liggéeyam waye man dé wóor na présentation bima def ak seq ko sama nawlé yi kenn gën ci présentation kon man résultat bi bettuma ñu ne ñaaxeen jël na première waaye nag dañ koy def ab soññee ci ñun ndax bi ñu nee ñaaxeen jël na première tubaab mooy wax ne le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet mais c'est d'y rester maanaam fexe ba agsi ci kaw jafewut bi nga xasee nag ba agsi fa loola fay téye nag ba doo wàccati loolu mooy jafe ma ne kon nag ñun bis ne ka tey amaat nañ obligation ah ñaaxeen kat jël na première sama nawle yi ma ko wala sama partenaire yi ma ko seqaloon ma ne leen ah nun kat kon nañ commencé waajal déwén ma ne kon nañ teel a waajal suñu borom suturaal nañu ñëw nañ àgg nañ ci sommet bi maanaam raw nañ ñëpp tiim nañ ñëpp kon amatuñu droit wàcc kon li gën a jafe doonul ñëw ba ci kaw waaye des fa la kon nag nañ fexe des fi lu mu gën a yàgg kon daal mbetteel la du mbetteel mbégte la waaye lépp nag du delloowaat ko askan wi ndax ñun dëgg la ay xalaat la mais su fekkee ñun rek la su fekkoon ñun rek la kon duñu mën a agsi fii ndax loo gis dañ ko ànd ak mbooloo ci laa leen wax ne kon soññee waat lay doon prix bi kat mbégte lay doon kontaan nañ ci bég nañ ci ab sag la waaye nag soññee la pour ñu gën a jëm ci kanam